alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi zawi ridwan wa tamkin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu leen di nuyu bu baax di leen siyaar di leen baalu xaq di leen baal bi ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla yàlla boole jéggal di leen ziyaare bu baax ci weer wu tedd wii nga xamante ne ci lañu nekk di weeru koor bu ko defee incha allah tey jii mooy sunu juróom-ñetteelu yóbbulu koor di ñaan borom bi nangul ñu te nangu leen di fàttali rekk xadis woo xamante ne abi hurayra moo ko nettali ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sunu borom jox na xeetam juróomi mbir yoo xamante ne ci weeru koor musu koo jox benn xeet kenn ku ne xam na ne weer wi nga xamante ne mooy weeru koor ni ko sunu borom farataalay ci ñun noonee la ko farataaloon ci ñi nga xamante ne ñoo ñu jiitu woon yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun waaye nag xeet wii di xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunu boroom jox na ko juróomi mbir yoo xamante ne ci weer wii di weeru koor musu koo jox benn xeet bi ci njëkk kenn ku ne xam na ne nit bu wooree xetu gémmiñam dafay soppeeku la koy waral nag mooy ñàkk lekk gi muy ñàkk lekk ak ñàkk naan gi muy ñàkk naan ci bëccëg gi day tax xetu gémmiñ gi dafay soppeeku waaye yonent bi nee na sallallahu alayhi wa xet googu lu muy soppeeku soppeeku soppeeku nee na moo gënal yàlla fuuf xetu misk maanaam xet googu moo gën a neex ci yàlla li nga xamante ne mooy xetu misk te kenn ku ne xam na ne xetu misk moom neex na lool waaye nag xetu gémmañu ko woor suñu borom nee na moo ko gënal fuuf li nga xamante ne mooy xetu misk boobu mooy benn bi ñaareel bi mboolem malaaka yi dañuy jéggalul ñi nga xamante ne ñoo woor ba koroog ñuy dog loolu tamit ci weer wii la ko sunu boroom di defal li nga xamante ne mooy xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam nga malaaka yi ñoom ay jaam lan yoo xamante ne sunu boroom moo leen teral ndax ñoom kat laa yaasuuna allaha ma amaruhum wa yafxaluuna ma yumiruun ñoom duñu mooy yàlla mukk te lépp leen sunu boroom digal loole la ñuy def te malaaka yi dañuy ñaanal njëggal ki nga xamante ne moo woor ba keroog ñuy dog ñetteel bi sunu borom dafay taaral àjjana bis bu ne yàlla dafay yokk taar gi nga xamante ne àjjana am na ko ñeenteel bi mboolem li nga xamante ne mooy seytaane yi sunu boroom daf leen di jéng te loole leer na ci xadis woowu nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon iza jaa ramadan futixat abwaabul janna wa xuliqat abwaabu naar wa sufidat achayatin mboolem cheytaan yi sunu borom daf leen di jéng ci weer wi nga xamante ne mooy weeru koor juróomeel bi yàlla day jéggal xeet wi bis bu ne ba keroog ñuy àgg ci guddi gu mujj ci weeru koor sunu borom dajale mboolem la mu jéggalu mu jéggaloon ci bis yépp yàlla jéggal ko ci guddi googu weeru koor weer la woo xamante ne weer wu bari ngëneel la yàlla nañ ko àggale ci jàmm ak salaam te yàlla nangul ñu nangul leen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu